bu la li nga xam ne mooy dog bu mag bi mille neuf cent quarante sept fois barkab alquranul karim ku ko def gis ko comme man di def لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ngay cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am bul faté cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am ci baatu astaghfirullah bi juróom benn garaatan ci yoo xam ne bu ci ne boo bëggee njéggalu yàlla boo bëggee am wërsëg boo bëggee am alal yu bari boo bëggee am doom yu bari boo bëggee am àll bu bari bu fu ñu dëkk boo demee mu di la nangul ba nga ëpp lu ba kajatoo fenn te sa alal bari nay dëgg ci yow gëm ko te muy dëgg ci yow billaahi boo ko saxoo bu soobee yàlla nii ma leen koy waxe nga ñëw ñeen nga ñëw fii ñeenti yoon buñ la daa abal oto bu soobee yàlla oto ngay indi di able oto ngay indi di able bu fekkee da nga daan dox di nga ko bàyyi wala nga xam ne neex ngay dox ngay dox te foo foo taxaw foo doxee waaye dab la ni la ndax da ngay def waaye niñ koy bindee rek nga koy waxee astaxfirullaaha as astafur astafurlaaha baaxul fu ef boobu daal doo doo ci teg ko fi ngay wax astaxfirullaha man de noonu lañ ma ko jàngale woon bu la li nga mooy dog bu mag bi mille neuf cent quarante sept fois barke alquranul karim ku ko def gis ko comme man di def timis gu ne waaye ñaan yëpp mi ngi gën a nungoo ci kat diggante trois heures ak quatre heures diggante trois heures ci guddi ak quatre heures fépp lay nangu waaye foofoo ci gën a ñàkk moom booy nga rek muy nangu boo toogoon te sa xol ne ci def koy te mu tëla mu daal lay fay yoolub def yoolub lool seen boutique biotique en partenariat avec Muslim moo leen di présenter seen gamme de produits 100% bio 100% naturel, sans effet secondaire, pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce. góor ñi éjaculation précoce moo sonale, ou wala dañoo am faiblesse sexuelle madame dañoo néew kàttan ñu bëgg un traitement définitif wala sax dañu am problème azoospermie maanaam seen man yiw dafa woyof seen sperme dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax euh, góor ñi nga xam ne dañoo yor ay awra yu gàtt ñu bëgg ko yokk am nañ bu hyper efficace am nañu aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax lool si jigéen ñi góor ñi ñoo koy utiliser am nañ aussi un traitement hyper efficace un traitement définitif contre Ndokhum City wala sax ñi nga xam ne seen yaram yi dafay xasan wala sax euh, mu jural leen une mauvaise haleine wala ay ballonnement yoo xam pratiquement Ndokhum City bi moo koy causé am ci un traitement définitif 100% bio 100% naturel hyper efficace aussi un traitement hyper efficace contre hémorroïde interne ak hémorroïde externe bi nga xam ne dafay waral awra bu gàtt dafay waral aussi néew kattan bu fekkee ci wàllu jigéen ñi la dafay indi perturbation des règles mën na la teree am doom am na aussi entrainement traitement hyper efficace bi nga xam ne ba tey hémorroïde bi moo ko causé euh, bi nga xam ne day waral constipation ak euh, biir buy kurkuri lépp loo ci mën a am rek incha allah suñu produit bi traité hémorroïde bi daf koy saafara e cent pour cent bio cent pour cent naturel sans effet secondaire. képp ku si bëgg mën nga ñu contacter ci 77 982 98 82. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا